xamante ne ay bagages cosaan la euh, l'armée bu euh, Sénégal moo ko yoroon moom la daal jëfandikoo euh, ci ay guerre mondiale ci jamono yooyu nga xamante ne nag ña nga doon rek dem ca tubaab ya ngir di leen jàppale ci xeex nag tey suñu naataango Ibou Diouf yegg fa rek gën ñoo xam ak musée boobu mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li juróom-ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi euh, ci bisu tey ji juróom-benn fukk ñeent nag ñoom ñoo am jàngoro ji euh, ci test yoo xamante ne def nañu ko mu toll rek ci junni ak juróom téeméer ak euh, fanweer ak juróom ñaar fukk nag fi mu ne sonn nañu lool ba fi mu ne nii ña nga ca réanimation ñu teewlu ki ñu gàllu wàllu ko fegu ga ca ministère de la santé muy docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróomi test yi ñu def juróom benn fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak benn ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll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 ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn téeméer ak fukk ak ñeent wér nañ si junni ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ministère la santé de l'action sociale mu leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi ñu mbas mi dooree ba léegi ñu jot a ñàkku ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent junni yu teg téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñu yegg rek ba euh, Bakel Bakel googee nag gis nañu ni ndeeteelu jigéen ña dafa am euh, solo lool am fa doole waaye tamit euh, xale yi nga xamante ne sax daanaka balaa ñuy judd nag lañuy ñuy faatu ci seen biir yaay loolu it doon ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu koy dund ca Bakel moo waral maire bu Moudéri nag ñu gën ko xam ci fu seenu Ndiaye di sàkku rek ci nguurug Sénégal daal mu fexe rek ba defar tali bi nga xamante ne dox na kon diggante fa ñu naan Jimbe ak Ngande loolu nag dana tax sax nag kon yoon yi Euh, mën a rek euh, ratax ba ku képp koo xamante ne nii bëgg nga dem ci kër docteur ci be jógee ci kër docteur dem ci beneen mu gën a mën a yomb waaye tey mu mel ni am na ay partenaire tamit yoo xamante ne dimbali na leen ci wàllu tabax ay jumtukaay ci kër euh, docteur dañ fay fekk ji Moussa Oumar Gueye ci commune bu Mudéeri askan wi dañuy am ay jafe-jafe yu tar ngir rawle seeni malade ndaxte yoon yi dañoo yàqu. état la état nañu jàppale yoon ñun suñu problème mooy yoon bu jógee Gandé ba Mudéeri kooku c' est 32 kilomètres tu fais deux heures et quelques pour nga ñëw fi euh, euh, euh, Bakel mais pour le moment yoon bi jigéen yi da nga nga jigéen boo xam ne dafa war a wasin des fois sax oto bi la wasin wala moom soit doom bi dee wala moom mu dee bureau Mansour le ministre Mansour Faye ñun suñu plaidoyer c'est tout le département nee na diggante Njimbe foo ko foo foo foo foo foo suñu arrondissement bi commencé ba Gandé ça fait 82 kilomètres il nous a tenu une promesse nee na incha jàppale bu ci yàlla àndee. donte woon jafe-jafe yi bëri na ci wàllub yoon yi teewul waa Eiffage daal di indi seen dimbal jagleel ko maire bu Mudéeri lu bëri loo xam ne defar nañ ko ci bërëbu fajukaay bi nekk ci Mudéeri ci Namandri ak ci Ounu Mamba. def ba ñu ñëw jàppale ko na ko yokk parce que plus muy def euh, plus ñu ko ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy parce que. bi tey woon na ne euh, lu ñu ko doon jàppale defar na ko. voire même defar ba lu ko ëpp donc ñu ngi koy encourager encore. USAID Nema jaarale lekk ci réseau Siggil Jigéen benn sargal boo xam ne dañ ko jagleel maire bu Mudéeri di Fouseynou Ndiaye. gën a gën a jëm kanam certes ju jugee Bakel mais la nga xamante ne jot nañ ko def ñun en tant que administration en tant que avec les collectivités territoriales. nañ def lépp li nga xamante ne mën nañ ko pour au moins pérenniser ak yooyu noonu nga xamante ne liggéey bu ñu fi jot a def ñu dañ koy gën a wéyale mais ñaanuñu yàlla liggéey bu ñu jot a def bu ñu fi jógee rek ñu fàtte ko wala bu ñu fi jógee rek mu nax si ay. ci fàttali nag ci département bu Tambacounda ki nga xam ne moom mooy maire bu commune bu ñaani tukkuleur ñu ko naan Seydou Ba moom nag moo jot sargal bi nga xam ni ñi ko ko jox moom mooy waa Siggil Jigéen ci USAID Neema Euh, diwaanu Louga artisan yi nag euh, ñooy euh, soññu nguurug Sénégal mbaa boog sax njiitu réew mi koppar yi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel rek secteur bi ndax jafe mbas mi ñu mën caa jotee ndax ay jafe képp nag la ñu nemmeeku ñoom artisan yooyu mu mel ni dañ leen a fàtte ci koppar yi nga xamante ne moom la ñu jagleel secteur bi ci kaw lool sax ñu ngi sàkk ci seenub jëwrin mu wàcc nag ci base ba xam dëgg-dëgg jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel Ale Thiam moom mooy chargé communication bu réseau artisans yi ca Louga ñu teewlu ko ci micro Ousseynou micro Thierno Fall. depuis 1960 depuis 1960 à nos jours jamais et au plus grand jamais ñu gis les artisans de la région de Louga ñu taxaw de ñaxtu wala ñu am lenn lu ñuy revendiquer au niveau de l' état mais tey bu nu ko defee xëy na am na lu tax. mais boo xoolee depuis mbas bi ba mu commencé ba léegi on travaille pas kenn liggéeyul defuñu dara xale yaa ngi nii seen place yaa ngi tëjee xale yaa ngi nii am nañ ay arrière location xale amuñu dara loo xam si war nañ ko mën di yóbbu si seen i kër xool leen loolu ñu téye 150 000 francs yoo xamante si depuis 9 mois mënuñoo fexe ba jot ci kon monsieur le président ñi ngi lay samp laaj la wax nga wax ak sa gaañ yi donc buñ toogaatee ba mu yàgg ñu jékki-jékki gën a gisaat ko mu gën a defaat beneen déclaration di wax ni xëy na jafe-jafe réew mi bokk na si li nga xamante ni si moom moo tax mu bëgg a jàppale ndaw ñi ah ay ndaw nag ma jàpp ni ku leen di dimbali faaw nga dem ba si ñoom nga rencontre leen ma jàpp ne luy dimbali ndaw ñi nekkul si ay bureau nekkul si ay costume cravate il faut ñu waa wut ay commission yoo xam dafay wàcc sur le terrain dem seeti artisan yi xool leen seen i jafe-jafe ñu des ba tey ci mbas mi ak geste barrière yi nga xamante ni xam ngeen ni dana ko yëkkati tey tax na nag ba yu baree bari ci activité daal di tàmbaliwaat ci kaw loolu sax la SAPCO daal di rek xaatim diggam ak rek agence bu promotion touristique ngir nag suqaliwaat wàllug tourisme fii ci Sénégal naka noonu it liñ ci bëgg rek mooy gën a jaay destination Sénégal su ko defee nag touristes yi euh, daal di rek mën di wutal siwaat fii ci Sénégal ndax loolu dafay soqali am réew Abdourahmane Diallo ak. Mamadou Gueye ci leeral. tourisme bi bokk na ci secteur yi nga xam ne ñoom la mbas mi gën a gàllankoor li ni mel sax a tax waa SAPCO ak agence sénégalaise de promotion touristique daal di lëkkaloo. depuis mars deux mille vingt ba léegi nit ñi mënuñu liggéey correctement jéem nañ jéemaat mais mbas baa ngi fi jeexagul kon li ñu mën a wax mooy comme yàlla def na euh, euh, njiitu réew mi levé na mesure couvre-feu. Euh, nit ñi mën nañ doxaat tuuti si wàllu fréquenter hôtel yi wala station touristique yi dañuy profiter rek pour. Euh, animé ñaari structure yi seen bébét mooy fexe ba nga xam ni loolu la Sénégal am ci lu baax ñu gën koo fësal loolu rek ngir xëcc ñi nga xam ne bëgg nañu ñëw ci réew mi. bokk na ci li nga xam ne mooy li ñu war a gën a mun a li ñu war a gën a mën a fësal euh, bokk na ci plage yu Saly plage yu sali yi nga xam ne euh, président de la république euh, lëkkaloo na ci ak ak banque mondiale état du Sénégal tax ba plage yi nga xam ne moo nekk sali euh, ñëpp amoon réputation ne sali amatul plage tey ku ñëw fii gis ne sali am na plage waaye du loolu rek président de la république ak les autorités de l' li ñu def ci tourisme ci juróomi at yu mujj dafa bëri. ci fàttali balaa mbas mi di dugg ci réew mi ci Petite Côte bi tourisme bi ci yoon bu baax la nekkoon donte sax balaa loolu ay jafe-jafe yu tar la doon jànkonteel. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdourahmane Diallo liggéeykat yi féete nag ci kër gi yëngu ci wàllu karo di liggéey karo ñu gën ko xam ci di nag nee nañ daañu bank seen yoxoo ci liggéey bi li ko tàmbalee fukki fan ak ñett euh, ci weeruk avril ñu ne ñoom nag li ñuy naqarlu mooy anam yi ñuy liggéey muy anam yu métti métti waaye tamit léeg-léeg ñu dàq ñenn ci liggéeykat ya te teguñu ko ci yoon mbaa sax euh, seen liggéey léeg-léeg nag gaañu dana leen ca fekk ay gaañu gaañu ñu cee jëlee te loolu yëpp dañ leen di seetaan tey ñu ne nguurug Sénégal nag sax booy xool lu ci bari bari nag loxoom setu ca ñoom nag ñu ngay yëglu Abdou Aziz Sy moom trésorier national la bu Union nationale des travailleurs bu soxal kër googu wax naa ko léegi ñu duppee wi fort nu ñu teewlu ay kàddoom. ñu ngi woo état du Sénégal ne contexte bi ñu nekk du contexte boo xam ne dafa war a yàccaaral yi di yokk mer mi di yokku xëpp li fi amoon démb parce que li fi amoon jógewu fi kon ñu ngi koy avertir di ko woo pour mu ressaisir l'état du Sénégal ñu xool taay fort parce que doomi réew mi fi nekk di fi liggéey ci alal réew euh, matière première réew mi la ñuy liggéeyee ci suufu réew mi la ñu nekk kon duñ ñëw ñu defal facilité exonération ñu jël lépp yóbbu ko seen réew doomi réew mi taxawaalu di fistré wu am na fi gaañu ci accident travail yu méttee métti dañ lay reetaan accident travail baaraam bu dag nga ne ngaañ di ko xool di yow ngay chinois di ko reetaan loolu c'est inhumain mais lu ñu naqari nag am na ay citoyen sénégalais nekk am doole nekk ci pouvoir bi nekk si ginnaaw chinois yooyu naan leen buñ sonni ñun buñ sonnee dañuy bàyyi. ay sénégalais yu ay sénégalais ay responsable nekk ci gouvernement bi nekk ci réew mi am cër nekk ci ginnaaw chinois yi naa leen ñii bu ñu sonnee dañ bàyyi loolu moo ñu gën a métti nag mais loolu xeex ak ñoom sëñ Abdoulaye Mbacké nee na ki nga xam ne ay fen la yor mu jaral ko xeex ki am dëgg na dee ba wow na xeex ba dee ba wow dañu xeex ba dee ba wow on va vous accompagner dans donc euh, reportage bi nga xamante ni nag yéen a ko doon gis rek ci ay bis yi weesu euh, fii ci télévision Futur euh, Média ñu doon xam ne ni ci zone des Niayes nag daanaka ay tonnes pomme de terre carotte ak chou pommé dañuy nëpp li ko waral nag ñoom ñi nga xamante ni ñooy yëngu nag ca mbay ma duñu ko mën a jaay ay junniy tonnes yoo xamante ne ah, dafay des ci seen loxo loolu nag ñu doon ko mettitlu mel ni tey nag yéen kilifa yi ndax jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi Aminata Assome Diatta yeggoon na ba foofee nag ah, dig na leen ne dana def kéemtalaay kàttan ngir jël ci ay matuwaay Cheikh Anta Diop ak Sey Latira li ko kayaar nootu guy Jama Jogo Daaru Njaay fas Boy ba àndal 1 fii ci zone des Niayes ñiy yëngu ci wàllu mbayam dër ñëpp génnoon doon yuppi nag jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko jamono yi ci kalamu jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak jaay. bu ñu waree jaay saako 5000 saako 2000 la ñuy jaay. nawet bi wax noppi. kamaate jarul dara jarul te suñu alal yëpp ñu ngi ko jël financé ko ci tool yi xaalisu banque yi ñu ngi jël sax suur ñu ngi ñuy woo. fay leen ñu fay leen ñu. amuñu fenn fuñ ko denc bu naree lax fii ñu dem jox suñuy xar wala ñu tuuri oño bi ci la fukki dërëm la ñuy fay bu naajee juróomi dërëm nawet bii daan jaay paan euh, chinois mil francs bu naajee ñu jaay nu téeméeri juróom fukk. kaani salaat daan ñu fay 100 francs bu naaje ay fukki dërëm. duñ ci gis suñu bopp moom te ay tooli machine la ñu yor waaye boo paree fare yi dana daar te duñu gis fenn fu ko mën a euh, euh, rawale pour jot suñu fare. fépp fu ñuy jaayee lujum de jëwriñ ji yor wàllu commerce nag jaar na fa Aminata Assome Diatta bi mu leen dégloo lii moom mooy xalaatam ci mbir mi. vraiment dafa nekk lu urgent loo xamante ne war nañ ko euh, solutionné ci li mu gën a gaawee. lu état bi taxaw taxaw taxaw pour réguler loolu bu fekkente ne tamit yéen àndu leen ci dafay daal di jafe. même produit bu baree ci marché bi rek prix yi dee daanu ndax léeg-léeg bi ngay soxla. Euh, pour nga mën a réguler marché bi comme ni mu waree léeg-léeg information bi dafay xaaw a manqué. ay tonu légumes yoo xamante ne gis nañu ko ci tool yeeg marché yi yu ci bëri di nëb. jëwri ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak jaay nee na nag lii bu demee dinañ fexe jël ay pexe ngir jàppale ñi nga xamante ne ci wàllu mbayam dër la ñuy yëngu. ñu koy jaajëfal Cheikh Anta ci wàllug mbay mi la ñuy des dem ba fële ca diwaanu Kaolack ak mbootaay gi ëmb rek euh, baykat yu Sénégal ñoo daal di lëkkaloo ak producteurs yi ngir nag euh, fexe rek ni ñuy wutee saafara ci seen i ko jafe-jafe seen seex nag euh, daatee jaare moom it sargal ñi nga xamante ne ràññee nañu leen bu baax a baax ci wàllug campagne ko njaayum gerte bi ndax gis nañu ne ay jéego def nañu ko ren jile Ibrahima Diame ak Faly Gueye ci diwaanu Kaolack. Euh, production bi nga xamante ni mu ngi làmb ci loxol maraîcher yu jogo ci diwaanu Thiès ak fee ci vallée ba loolu nag metti na lool ñi di waa CNCR ñu di ko ñaawlu bu baax baax tax nag ñuy woo ñi di nguur gi rawatina waa ministère du commerce ñu bañ a seetaan li ni mel te fexe ba jàppale béykat yooyu lee loolu nag waa DER ak waa ministère agriculture ak ministère du commerce ñoo war a waxtaan seet naka la ñu war a def ba lëkkale ba ba jël euh, xalaatu béykat war a mën a jënd liñ ñor parce que suñ ko jëndee njëriñu réew mi rek njëriñu béykat yi rek la ñu ngi wax nañu comment nañu def la promotion du consommé local c' est l' occasion rêvée de faire la promotion du consommé local bañ a ex importer benn soble wala bann importer benn pomme de terre wala bañ a benn chou ngir ñu fexe béykat yi ko béy mun koo jaay mun ci gis seen bopp maa ngi leen di masaw nag bu baax. wante nag li jëm ci wàllu campagne um jaam gerte gi waa CNCR rafetlu nañ ko bu baax a baax ndaxte nee nañ njëg yi ñu ci am ci kilo gerte gi mosuñ euh, ak wax dëgg yàlla ni ma ko seetlu nan la ko mbokk béykat yi bëri seetlu parce que daaw suñ ko méngalee ren ren moo gën et que jënd nañu gerte njëg buñ ko mësul jënd bu seeñaa dajee ne gerte gi kilo deux cent cinquante lañ ko jënde ñun béykat yi jaayuñ ko amul benn béykat bu jaay kilo gerteem deux cent cinquante daanaka trois cent la tey fu may xool gerte mu ngi taxaw ci trois cent cinquante trois cent soixante-quinze ñoom waa CNCR nag di cadre national de coopération de ruraux doon nag delloo njukkal ay béykatam dajale leen ginnaaw bi nga xamante ni tàggat nañ leen bu baax a baax ci wàllu gestion financement yi nga xamante ne ñoo ngi ko war a jot ci seen partenaire yi leen di jàppale assemblée nationale ni ñu ko waxee woon ci ndorteel yi démb nag euh, mujj nañoo déggoo ba sax sa jàllale projet de loi boobu jëm rek euh, ci nag euh, dàq wooteek gox goxaan yi waaye tamit conseil municipaux ak départementaux yi seen mandat nag ñu daal di koy yokk loole nag mujj na sotti ca assemblée nationale ak ni ñu ŋàññee rek kon lu soxal wàlluk dàq googee jëwriñ ji nga xamante ni moom lañu dénk biir réew mi nee nag gisu ci benn jalgatib yoon ndax lépp teg nañu ko ci yoon ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi ñu namoon a amal wote yooyu ah, xam ngeen ni mënutoon a nekk ci ah, xool ba fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 Alassane ak Diafara Ba ci ay contestation yu metti la ñu amalee examen projet de loi numéro 05 2021 mi dàq élection gox yeeg goxaat yi waaye itam wéyal mandat ñi nga xamante ni ñoom ñooy conseillers municipaux ak départementaux yi. bi nga ñëwee fii rek indi nga ñaar ñaari date yu bokkul indi nga date boo xamante ne yaa ngi wax. au plus tard le 27 février 2022 waaye indiwaat nga amende boo xamante amendement boo xam yaa ngi waxaat encore euh, le 31 janvier 2022 nga xam ne loolu dafay wone rek ne xamu leen fu ngeen jëm. li ni mel ñu jàpp ne ñoom ku jéggi dax gi ñuy dax élection yi yokk itam mandat ñi nga xamante ni ñoom ñooy conseillers yi nekk na loo xamante ni tegul fenn te tamit waxtaan amu ci waaye loolu terewut waxtaan yi wéy majorité bi daal di adopté li nga xamante ni moom mooy projet bi ñu dàq li nga xamante ni moom mooy élection yi ba au plus tard fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atub 2022 ginnaaw amendement bi nga xamante ni nguur gi dugal na ko. li nga xamante ni mooy fil di dialogue bi bu mu nekk loo xam ne dañ koy romp nañu wëyal waxtaan wëyal waxtaan boobu sax d'ailleurs moo tax gouvernement bi dugal benn amendement parce que am na ñoo xamante ni dañu am euh, itte am tamit xalaat bu rafet. jug dox ci wax ci wax ak parti ñëw xool ni est-ce que si délai bi buñ ci jëloon quelque jours wala jël ci benn weer du indi benn solution boo xamante ni parti yi dinañ mën a toogaat ba juboo ci kaddu loolu moo indi li nga xamante ni tey indi nañ ko euh, ci amendement te xam naa ni dinañ ko évoquer tout à l'heure ci lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy dëppoo yoon wala déet li nga xamante ni moom mooy yokk gi ñu yokk mandat conseillers municipaux ak départementaux yi yoon leeral na ko ci code électoral bi bu sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yor biir réew mi. su fekkente ni loi bi dafa wax nii tant que voté wuñu fal yeneen conseiller ñu ñëw remplacer leen amul benn yoon bu ñu mën a waxee ni seen mandat jeex na maintenant nag bu dee da nga def interprétation ni 28 mars la ñu war a def élection 28 mars jàll na te comme jàll na te ñii ñi ngi nekk toujours en place te falaguñu ñeneen man jàpp naa ni seen mandat jeex na kooku xalaat la. mais xalaat bi dëppoowul du du xalaat moom mooy loi. ci lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy ab délégation spéciale dellu siwaat na ci ne loolu code général des collectivité territoriales daal dina koy leeral li ci des nag mooy ñu wéyal waxtaan wi bu ko defee rek ñu daal di jàpp ab date boo xamante ni ci la ñuy mën a amal jongante gox yeeg goxaat yi. ma ci loolu la ñuy des Alhassane Ba ba tax na njiital association euh, bi nga xamante ne nag moom moo rek euh, boole njiital gox goxaan yi euh, ci Sénégal nag ne moom gis ci sikki sàkk moom it muy docteur Adama Diouf nekk it njiital conseil départemental bu Kaffrine nee na nag li ñu dàq kon woteeg gox goxaan yi amul benn jalgati yoon bu ci am te loolu it mënuñoo wax ni tey suñu démocratie dañu ko salfaañe jokkoon na ci ak Omar Ndiaye ñu teewlu ko. jàpp naa ne légal na jaar na yoon c'est conforme à la loi légitimité nag boo naan est-ce que askan wee ko wax est-ce d'accord na ci loolu mooy légitimité ma bëgg a fàttali ne légitimité démocratie direct moo koy def ay référendum wala yu mel noonu mais comme acteurs politique yi yëpp d'accord nañ ni nañu dàq élection yi problème mu dàq élection posé wul. ndax ñëpp d'accord nañ ci li ñuy discuter fi mu nekk nii tey tey tey tey mooy kañ lañ koy def ban date ñun nañ ko def décembre ñun nañ ko def janvier wala février chef de l'État le président Macky Sall ne mettre na en place la commission politique ñu ngi ciy waxtaan ñëpp d'accord nañ ko dàq dàq nañ ko kañ lañ koy def mu ne waxtaan leen seen biir miss de boo ko dégloo dem koy def ne le 28 janvier acteurs politique yi nañu waxtaan seen biir ba. ba balaa le vingt huit janvier gën gaa sori ñu d'accord ci man yaakaar naa ne warul am coow bu fekkee ne versé wuñu ci politique politicienne mais bu dee dëgg rek moo tax ñuy wax vrai véritablement légalité ak légitimité posé wul fii ndax nee naa sànq ci tubaab ñoom ñëpp ñaari doom la waaye benn baa leen jur. mangoog ci jamono jooju moom waa Benno Bokk Yaakaar ya fare ca kaw la nag ña ngay xàllal yoon euh, président Macky Sall ngir mu doonub candidat ci atum 2024 ndax ci seen gis-gis nee nañ nag lu soxal kon Benno Bokk Yaakaar euh, benn candidat dong la ñu gis muy président Macky Sall loolee la ñu xamle ca diwaan Kaolack ga ñu doon amalit ab meeting jublu ca nag dajale mbooleem ñi fare ca parti ba Habib fay dañ lañ ci àndal ak Amadou baax mobilisation bu takkul lañu def ci diwaanu Kaolack ñoom waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji ñu ngay dajale seen militant yi di def mitin ci boobu léegi meeting sax waral na seen coordonnateur bi yee yàbbi ne dama ne président Macky Sall jarul na bëgg nañ ko wax ak nañ ko le mooy suñu candidat na leer naan na wax ci affaire 300 mandat bi wax jaa ngi noonu Macky mooy suñu candidat loolee di loo xamante nit lu leer la ci boppu askan wi ndaw ñi jamono ji ak xëy mi doon na loo xamante nit lu leen soxal la ñoom ñi engagé wu ne sax faaw rek ñu tàggat leen ci ay formation te noppi nañ ngir enrôler leen. dinañ def forum te seen bëbët dina dem ci président Macky liggéey te amoo formation aussi dafa am na ONFP dañuy def ay formation na ngeen laajte man commencé naa laajte pour samay militant dinaa wax responsable politique yi aussi ñu laajte pour seen militant ñu def formation yi. ñu ne faaw ñu dajawaat saafonte waaye itam tëral seen feuille de route. c'est un boo xam ne nit ñi dañu war a dajawaat. pour faire comprendre aux populations, à la en particulier, que le président a fait de très bonnes choses pour le Sénégal. waruñoo nangu ñeneen di ko di ko nëbb. Benno Bokk Yaakaar dajale lu toll ci fukk ak ñett ci ay communes yoo xamante ni ñoo nekk ci diwaanu Kaolack ñoom ñoo ñee ñëpp boole seeni militant nekk akub say ngir gën a mën a dooleel kii di njiitum réew mi waral na bileek mitin gannaaw ba maatam ak Podor amale ñoom ñu wane seen bopp. ñu koy jaajëfal Habib euh, Faye lu toll nag ci ñeent fukki euh, junni ci mètre carré euh, la ñu daal di nag xàll muy ab espace vert nag la ñu def fële nga xamante ne rek moom moo di Kaffrine loole nag liñ ciy jublu rek mooy kon diwaan ba gën a taaru gën a dëpp ak jamono jawriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu urbanisme dëkkuwaay yeeg cet gi nag mu daal di fay amal li ñu duppee plan d'urgence mu soxla nag wàllu cet ca diwaanu Kaffrine la ko lancé ndax la ñu bëgg rek mooy Kaffrine mel li ni yeneen diiwaan yi Omar Ndiaye la ñu ciy àndal ci leeral. jëwriñ ji ñu dénk wala urbanisme ak logement et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou saw ñëw nag fii ci diwaanu Ndoukoumane fas yéene soppi nag xar kanamu dëkk bi lu tolloog ñeent fukki junniy mètre carré daañu ko taral ak ay gàncax aménager la devanture du cimetière catholique de Kaffrine dinañu defar alméeru catholique yi ci bunt bi ba noppi doog a dem ci hôpital Thierno Birahim ndaw bu Kaffrine defar foofu noonu ay gàncax su weesoo loolu tamit ci buntu dëkk bi entrée ak sortie yëpp dañu ko defar. de de jardin pour la sécurité et yooyu la gàncax ak i garab yu ñuy taaralee dëkk bi dina gën a ñoŋal nekkinu askan wi. loolu sax dina gën a wàññi tàngoor wu tar wi fii ci diwaanu Kaffrine programme bi dina ñoŋal sax nekkinu ndaw ñi ak askan wi ba tax na sax dina créer lu tollook téeméer ak juróom fukki xëy ci région bi commune bu Kaffrine rek am na ci juróom-ñett fukki ndaw yoo xam ne dina leen ci jël su mooyee nag ñi nga xam ñoo nekk UCG. sans compter ceux de l'UCG. moom Abdoulaye Seydou Sow nag di xamle fanweer ak ñaari communes yi nekk ci région bi dana fexe ba kenn ku ci nekk am lu toll fukki taax yoo xam ne dana mën a dalal ay gan. ci commune région bi yëpp commune bu nekk mu am au moins mis à la disposition du maire pour accueillir les fonctionnaires. pour les organiser parce que am na enseignants yoo bu ñu leen affecté ci ab dëkk amuñ fuñ enseignant plus muy gën a plus muy gën aay. boobu mooy programme zéro bidonville. moom jëwriñ ji Abdoulaye Seydou Sow nag ñëwoon lancé programme cet ak cellal eh, fii ci diwaanu kafrin nga xam ne jumluwaay bi yëpp moo di fexe ba soppi xar ndukkumaan. ma ngoog euh, ñu koy jaajëfal Omar Ndiaye at nag gannaaw bu mu dëddu àdduna euh, moom mii di Alioune Badara Diagne ñu gën ko xam ci euh, Golbert ca diwaanu Ndar ga mu fekk baax nag ñu ngi koy fàttaliku ci bisu tey ji doon wàccee kaami rek ngir nag delloo njukkal fàttaliku waat taskatu xabaar boobu nga xamante ni tamit ab artist la bu kenn dul nattable ci réew ma Sénégal ñu teewlu Malal Junior Diagne bokk rek ci doomam mu yëkkatee kàddu dénk ko sunu naataango ñu toogal ci diwaan ba di Ousseynou Diop ba waaw benn at tey jii ñetti fan ci weeru avril la dëdd woon ñu koy ñaanal ñaan gi dañ ko gën a euh, firndeel ci wàccal ko ay kaamil ci rajo bi nga xam ni da ko sosoon jëlee woon ko Ndakaaru indi ko fii pour mën a suqali ndar ñaan gi nag njaboot gi yëpp mooy ñi mu jur ci géño ñi mu bokkal deret ñi mu bokkal ndar ñi mu bokkal métier teew nañu ak ñi mu bokkal diine ji parce que góor gi dafa dafa transversaloon euh, at nag gaaw na waaye li mu ñu fi bàyyeel foog naa ni tey lañ ci gën a jatu pour fexe ba mu ba mu yemb mooy kaamil yi mu doon def si euh, ñaari si wàllu euh, cimetière yi danañ si gën a taxaw ren lañ koy defaat gannaaw ba mu dëdduwee ndax corona bee taxoon waaye tam rajo bi mu bàyyi fii ak cofeel gi mu amoon ci ndar ak fonk gi mu fonkoon alxuraan ak dox mbokk ñun njaboot ñi mu jur ñi ngi koy jooy waaye xarit yi mu doon nekkal ñi ngi koy jooy ñi ko doon fekk ci buntu rajo mu leen di jox bu yàlla sàkk ñi ngi koy jooy ak sëy yi daan tas moo koy defar ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënu su ko taxaw fi di ko lim Golbert daal mënu mënus na ma wax ni euh, teen la daal ku sànni sa baag boo tenxee jël ndox jëfandikoo yal na yàlla yokk leeram te bàyyi fi njaboot gi bàyyi fi waa réew mi ma ngoog ñuy wéy rek di ko ñaanal euh, ëllëg nag yem ak ñeenti fan ci weeru avril atum 2021 ci la Sénégal fas yéene rek màggal euh, bés ba mu moomee euh, boppam bés boobu nag kenn du ko fàtte tey ñu daal di yegg ba musée des forces armées xam ngeen ni kër googu nag ca la ñu dëxañ rek yenn ci jumtukaay yoo xamante ni l'armée bi yoroon nañu ko ci jamono muy jamono yu tubaab ya muy jamono yi nga xamante ne nag dañ daan dem guerre mu nekk nag ay jumtukaay yoo xamante ni nag dafay fàttali bu baax a baax wàllug taarix Ibou Diouf moo ba ca musée des forces armées. ci musée bi ñu jagleel l'armée bu ñëwee di nga fi fekk ay jumtuwaay yuy fësal taxawaay bi nga xamante ne soldaar yi mës nañ ko am fii ci histoire Sénégal leneen li koy firndeel drapeau bi nga xamante ne moom la ñu muure woon yu président Léopold Sédar Senghor leneen lu koy firndeel bokk na ci li ñuy gis ci bile sa euh, chef d'état-major général des armées moom moo initié woon benn exposition bu nga xam ne bi ay quelques jours la rek ñaari ñaari ayu bés la woon mais ñu gis nit ñi sawar ci lool lool lool lool mu ne léegi nag exposition bi dañ koy jël mu wër Sénégal yëpp bi mu wëree Sénégal yëpp ba pare am na division bu nekkoon Jal Diop mu tuddee woon ko rek division musée mi ngi woon DIRPA léegi de 97 nag ñu ne léegi nag division boobu dañ koy ñëw yëkkati pour mu mën a doon direction. mu ngi fii ci bërëb bi ñuy duppee salle de symboliques nationale comme ni ngeen koy gisee nii ay médailles ak i camouflé loolu lépp di firndeel taxawaay bi nga xamante ne suñu larme bi mas na ko am. lu jëm ci xare muy tenue donc mu yëre yi ñuy sol muy ngànnaay. muy fetal muy paaka muy muy xeej ah mbaxana lépp lu jëm daal ci li nga xam ne lii soldat si danañ ko soxla pour mën a dem guerre. ci biir armée bi nag fàttaliku seen ñooñ yi nga xamante ne dañ fi bàyyi ko lu am solo la loole bokk na ci li koy firndeel bërëb bi ñu duppee salle Koweïtienne. rek woykat bi dafa ni ñi dee demuñu fenn ñu ngi ci ñun. camp boo dugg fii ci senegal am nañu benn bërëb bu nga xam ni moom la ñu jagleel sunu mbokk yi nga xam ni sunuy bokk mbaar ak ñi ñu jiitu ñi nga xam ni ñi jóge nañu fi te doon xare ba daanu. loolu yëpp di doole réew Sénégal jaarale ko ci li nga xamante ne loolu leen lañ fi bàyyil askan wi ci ndono mu bëri ci lu ñu dëxëñ ci bi la Ibou Diouf àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy mbokk yi jaajëfal nañu leen fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg bi sant leen gërëm leen santit ñi fare woon ci machine bi rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm di ko saaku ci yéen